mën na ne. lu tax mën na ne mënul nekk c'est des libéraux. ces deux camps libéraux ils sont antagoniques aujourd'hui mais, mais, mais pour les intérêts de leur camp et pour les intérêts du pays ak askan wi taxaw parce que léegi askan Sénégal dafa xam ne dañ ko loo xam ne dañ ko tàmm gis ci politique maanaam ñoo xamante ne daan wax dellu si waat ci te léegi dafa am ñoo xamante dañoo bees ci langue bi prôner un changement de ce comportement là ma ñëw par loolu konoon tey da nga gis Mimi Touré di yow wala Mary Teuw Niane bàyyi Macky Sall pour dem ànd ak ñee ak li mu leen wax yëpp wala ak ñoom li ñu ko wax yëpp wala nga gis Mimi ki doon incarner une opposition frontale contre le le camp de l'ex-Pastef nga gis ko tey moom moo dem fekk dem seen siège pour ne day ànd ak ñoom wala loolu bokkul ci éthique wala loolu dafa bokk ci éthique boo xam ne dañ ko accepté ba léegi ci la moo tax ma ne la politiciens yi la bul yaakaar ne askan wi leen rek moomu ci sof mun na am da leen découragé. Hmm. mais du tax nag du tere ñe war a ànd di ànd di politique yi ak côté yi dañuy ànd wote ji hmm. tey bu jotoon situation bi ñu ne way juboo nañu nangam PDS APR juboo nañu ña tax ñu ñuy juboo duñ ñi nga xam ne dañ leen di contre quel que soit duñ leen woteel ñi tax ñu ànd mooy ñi leen di woteel. Hmm. ñoom ñu ngi calculer ci est logique on va une élection bu doon France les républicains dañuy ànd ak les la droite. la gauche dañuy jëm a seet ak écologistes yi dañuy demee ànd. fii c'est pareil quelles que soient par ailleurs les divergences politiques pour garder le pouvoir ou pour conquérir le pouvoir l'alliance qu'il y a de l'autre côté elle n'est pas bigarre ay sëriñ ay gauchistes ay libéraux ay ñu bokkoon APR ñoo daje pour ne nañ fi jëlee ñi fi nekk c'est légitime parce que seen objectif mooy jëlee fii ñi fi ne autour de quel programme autour de quoi on ne sait pas en tout cas personnellement je sais pas j'entends parler projet de l'autre côté c'est des gens qui ont gardé le pouvoir qui disent qu'ils veulent renforcer leur hégémonisme maanaam ñu jéem seet nu ñuy ànd ak yeneen libéraux yi loolu aussi c'est légitime kenn ku si nekk da fexe daal ba bu ëllëgee boo faloo mhm. naamal njëriñ askanu Sénégal effectivement c'est c'est l'essentiel alors euh, léegi nag ñu wax ci Karim Wade jàpp nga ne dañ ko léser dañ ko tooñ wala càggante nga ko jàppee euh, de son côté et du côté du PDS mi ko ngemboon pour mu nekk seen candidat ci coowal double nationalité beeg euh, décret bi yéex a génn le 16 janvier alors que déposé woon na ba pare def déclaration sur l'honneur ñenn ñi sax di wax parjure lan mooy sa conviction ci ci mbiru. xam nga wax ci Karim Wade daf may jafe pour plusieurs raisons parce que d'abord man du may wax ci ay nit rawatina koo xam ne euh, doomu président Blair la donte man ak moom seqatuñu dara ci politique. seen diggante it neexatul. non parce que seqatuñ dara ci politique mais par éthique du may faral di bëgg di ci nit man damay bugg fa ci idées yi maanaam euh, tout ce qui tourne autour des idées mm. et gëm naa ne motivation conseil constitutionnel euh, ci maanaam euh, déclaration de candidature sur l'honneur du de Karim Wade jamono bi mu koy def li conseil constitutionnel wax moo am il était à la fois sénégalais et français débat boobu aussi bu kenn indi ne waaye dañuy wax sénégalais du sénégalais ankay sénégalais la bu ko neexoon tey mu gàdd ñaari nationalité am yëpp ñëw liggéeyal Sénégal te kenn du ko wax dara bu ko neexoon tey mu nekk premier ministre Sénégal mun na nekk président assemblée nationale Sénégal mën na nekk maire de Kébémer wala maire de Dakar s'il veut mhm. mais président la République suñ constitution président Abdoulaye moo ko ci def d'ailleurs <laughs> pour nga nekk candidat il faut nga nekk exclusivement sénégalais te xam naa jamono bi ñu koy def aussi motivation politique la woon rek c'est vrai que lu baax la pour man man je soutiens ça mais Abdoulaye dañ ko daan faral di wax français nga français nga si vous rappelez ba mu libéré moom yàgg na ne nekkul français boobu gaa ñi xamuñ ci dara avant muy def thèse am déjà en cinquante huit bàyyi na nekk français mais comme wóor na ko ne ñi ko ñi muy jonkalteel wax naan ko français nga français nga am na <laughs> mu ne nañ ko ci dugal comme ça góor réew mi rek war a nekk exclusivement sénégalais mais loolu aussi yeneen réew yi lañ koy def. Amérique boo fa judduwul ci sol bi. donte sa papa ak say américain la ñu. nga tudd Stewart nga juddoo Dakar doo nekk jamais président États-Unis déedéet mun nga nag sa papa nekk Kenya ak sénégalais sa yaay nga juddoo Amérique. mën nga nekk président de la république. comme Biden comme Barack Obama. comme voilà donc yooyu. réew mu nekk moo am ay réglam. nañu fexe di ko respecter ku bëgg li réew mi sasoo nga ne man di dinaa fexe ba respecter boobu critère parce que dinaa mun a fexe daal li ñu may laaj surtout que quand même 2019 c'était le même débat ñun loolu la ñu doon wax maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñëwul bi ma laajee Omar Sarr affaire double nationalité bi daf na ma ah moom dal ne na génn na renoncé na ko c'est loolu Omar Sarr tegoon sama loxo lay wallaahi taalaa bi ñu toogee encore ba cinq ans après le même débat sa pose pour man damay jàpp ne am na sàcc càggante. ci ci wàllum. waaw parce que li ko dal. dal nag fii Abdou mbay mais Abdou mbay bi mu demandé libéré wu en trois mois gaa yi libéré dañ ko jox ko kayitam moom itam français la ak sénégalais am na ñeneen ñoo xam ne ay français sénégal la ñu ñàkkul peut-être moom moo ci fësle et c'est dommage ñàkkul aussi ci ni mu ko gisee. communication parti bi am nañ ci responsabilité parce que gëwuma ne man Alassane Thierno Sall bi muy njëkk a génne communiqué boobu di wax naan conséquence war nañoo xool. xam nga ci mm-hmm. je pense que réaction bi ma liir jur na réaction par rapport ak loolu ku xam Alassane Sall soo ko xoosee peut-être mun na am dina gis boppam. Mm-hmm. parce que nitu dafa xaw a kii daal dafa ah. tàng. Mm-hmm. Euh, loolu aussi war nañ ko mën a xoolaat lu gën a mën a dimbalee président Karim ndax déclaration yi nga xam ne peut-être day mettre euh, ay soupçon ci ay nit boo koy def ci télévision Sénégal ay bind euh, nit ñi war nañ def attention ba mu jaral nit muy porter plainte yëngalam réew ci ay bugg a falu man gisuma dara lu ko fi jar ndax euh, réewum jullit la ñu nekk surtout les gens souvent ont tendance à dire nguur yàlla koy joxe ñaat ñàkkul jamonoom jotagul mm. ñàkkul yàlla waxul ne bii lay doon je l'ai dit parce que maa ngi wax ak ay jullit ñoo xam ne peut-être mën nañu am. loolu la ñu gëm argument yi loolu la ñu gëm argument bi aussi il nga teg ko des ci table ji. nga gëm loolu. son père a été président à quel âge. 74 ans. lu tax moom mënul yaakaar ne mën naa jël di nekk président à 60 ans wala 65 ans wala 62. ah moom Karim kay daanaka 60 na ba noppi kay. mais mais am na ñuy laaj sax est Karim bëgg na nekk président. ah si parce souvent da wax nag. waaye des na nag liggéey bi moom pour pour pour nekk président des na waaw maanaam eh, réew mi dafa am nu muy doxee ci ci ci politiciens yi politiciens yi réew mi dañ bëgg kii de moo fi ñëwoon <laughs> diw mii xamee woo ko moo ñëwoon fii suñu toog suñu datt yi naan suñ petit daay yi mm. souvent sénégalais yi ci ci intérieur bi ñun Saloum dañ. ñu dañ waaw dañu fonk loolu. Mm. ñoom en général ku fi ñëw ñu boo jeunes yi ñuy def ci yooyu ñuy may noonu c'est une communication extraordinaire ji nga yooyu xale yi koy sol foofu yooyu. ak jour ba nga fa demee ci date yi. dañuy bu wote bi jotee dañ naan ngay xool photo yi dana ah kii dañu woon na fi. soxluñ programme ñu ngi xool yéeg-yéeg bi nga am ci ñoom. c'est important loolu. je pense que loolu ñi ko war a conseiller pour mu nekk président. war nañ ci gën a góorgóorlu pour que parce que appareil bi am na PDS ils sont installés partout mais taxawaayam moom en tant que leader parce que élection présidentielle benn nit la ak Sénégal. du ay appareil contre Sénégal loolu législative la mais fii benn nit la moo tax war nañu xoolaat seen bopp bu baax par rapport ak li ñu war a proposer Sénégal yi ak ban posture la ñuy am pour ëllëg. très bien mënuñu la bañ a laaj aussi coow lii débat bi ci Diomaye dañ ko war a bàyyi waruñu ko bàyyi euh, pour que mu mun a battre campagne parce que candidat la et puis war na am aussi benn yemoo bu am ci ci biir candidat yi. Euh. ma pose une question en retour. <laughs> fii dañoo daan laaj. waaw mais c'est important c'est la Socrate bu bëggaan tontu. <laughs> Euh. da koy def question. Hmm, boo ko laajee mu euh, ndax bu parrainage amuloon du ko mu neex nga ne candidat. waay. Hmm? Hmm. parrainage bu amuloon. ñëppay mën a te du ko mu neex nga ne candidat wala. est-ce que mun nañoo nangu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi nekk ci lien de détention poser seen candidat jàll. parce que kenn atteegu leen. après ñu ne il faut les libérer parce qu'ils sont candidats xam nga lu muy tekki hmm. bu ñu la jàppee téye la en lien de tension hmm. nga dem nekk candidat pour génn ci <laughs> wala mais koo xam ne tamit attewuñu la defuñu la dara dégluwuñu la itam déggu li ma la wax ñooñu atteeguñu leen ñi ñu atteegoo tax may wax ñoom ñoom ñu def candidat mm-hmm. parce que pour man loi code de procédure pénale lu mu wax hmm. kenn mënu ko randal c'est une loi parce que y quarante cinq mille cinquante mille sénégalais qui ont dit que diw mi dafa war a nekk candidat wala dafa war a génn parce que ñoom ñoo ko décidé. Mmh. en le parrainant c' est mon loolu dama ci def réflexion te bëggoon naa ko sax génne réflexion bi avant sama benn xarit moo xam naa mooy seetaan mu ne ma lii boo ko génnee dañuy wax da nga comme si dangay jox injonction non da ngay jox injonction conseil constitutionnel <laughs> pour ñu bañ ko valider. candidature Diomaye. parce que li ma ci doon ragal mooy lii. Mmh. mooy benn. nu muy defee campagne. ñaar hypothèse ñu ne gagné na xam nga amul fenn ci loi Sénégal fu ñu wax ne boo gagné boo nekkee prisonnier dañ lay libéré nga dem def prêter serment wala amul wala am na fu ñu ko bind <laughs> muy problème boo xam ne politique lay doon certainement politique moo koy réglé. mais politique nag mooy réglé buy réglé rek souvent y a des divergences yu yu méttee méttee ak interprétation mu des euh, situation dëkk bi bu boobaa. nan lay mel nan lay mel nan lay mel dans un environnement sous-régional boo xam ne déstabilisé y a les pouvoirs militaires partout Niger Burkina Mali Guinée y a que le Sénégal qui échappe Mauritanie c'est un pouvoir militaire qui cède la place a un autre système boo xam ne il était là-dedans damay jàpp ne sori sori sori soriwante wuñu mais est-ce que bàyyi nañu xel ne Sénégal politiciens yi bàyyi nañu xel ne actes yi ñuy posé mun nañu jural lu ne loo xam ne kenn du ko xalaat fii ci réew mi yàlla na yàlla na bu mu am nag mais bu ñu nekkee seen biir xiiroo ka ŋaayoo.